Bienvenue sur Salam Vision. والترحمي الخلق يا من يدعو البدع يا مالك الملك وحدة والترهم الخلق يا من يبدو البدعاء والترهم الخلق يا من يبدو البدعاء محمد للجدان قديمه ملالي ولا سامني ما متوي كريم بأرجاه وفي الدارين والأولاد من العراق شرج السادة ويقل الأحبار والأولاد نجاتي وإلهي وعجز قامة وإله بالله والخلق خالق المتعب المؤجل الموت واليم بمدينة حيفا أذى الفلك كالخمل وإن كان بهم رتبوا بالفضل والبساس مزاياك يا كل ذا الكل قد جلت ولكن جلت mu dem ba ci digg bi mu saase ko. bu dee bay bëgg a dugg àjjana ci bunt bi mu ne. bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi ñoo ngi sant mbokk yi bu baax a baax a baax a baax di ñaanal Serigne Mountakha yàlla na ko fi suñu boroom yàggal lool tam ànd ak wér falim yéenee liggéeyal yéenee liggéeyal Serigne Touba yëpp suñu borom defal ko lu kawe njortam ci barke Serigne Touba di ñaanal sunu waajur alaaji sëriñ Takko yal na ko fi sun borom yàggal lool tam ànd ak wér di ñaanal sun kilifa gi di Cheikh Mouhamadou Fadal yal na ko fi sun boroom yàggal lool tam ànd ak wér eh, ginnaaw loolu kàddu yi kàddu yi cant la di sant sunu waajur yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir kër gi di ci jiital sunu maam soxna Ummi Seck di ko ñaanal yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool tam ànd ak wér di sant mboolem soxna yi nekk ci kër gi yëpp ndax uh, wax dëgg yàlla gis nañ coono biñ daj ci bis bi rawatina coono yi génn ci màggal gi waaye liñ man lépp def nañ ko ci bis bi ginnaaw loolu ñoo ngi jiital cant gi suñ suñ rek uh, di ko di wax ci kàddoom mu wax ne sant na mboolem ay rakkam cant gi nag ci biir xolam la ko jële ndax li tax mu leen di sant mooy ñoom kat dañuy ay rakk yoo xamante ne nii wax dëgg yàlla yu yu ko noppal lañ ndax ñoom jëluñ seen tànk teg ko ci leneen dañoo jël seen tànk teg ko ci li seen maam bëggoon muy seexul xadim mooy amub yar ami teggin bëgg lu baax foofa loola lañ jël teg ci seenub tànk wax dëgg yàlla euh, di mu ngi sant sëñ bas bu baax ci lii mu taxawal rawatina ni mu ko defee tamit am na solo lool euh, damay dégg ñuy wax naan buñ nee sëñ tàkko ne ak sëñ seexu bi waaye man dama dama dama damay wax ne loolu jëru ko ndax waa kër sëñ Tuubaa sax laay wax kenn du ci ñàkk kilifa te man dama naan bu buñ bu ñu xasee ba tudd sa kilifa rek mel na ni duggaale nga ca biir damay bañ tamit ñu naan bàyyi galas euh, mu sëñ tàkko ak bàyyi galas mu sëñ seexu mi loolu tamit amul njariñ waaw ñun liñ séq xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax rawatina ñaari kër yi liñ séq xam nañ ko bu baax a baax a baax ndax sëñ Tuubaa moo leen boole ñu bokk lépp nag waaw ku ci nekk boo gisee sa moroom day mel ne sa bopp nga gis waaw ci ñun ñëpp nag ci ñi gën a doon gone ba ñun ñii nga xamante ni ñuy seen ñuy ñooy seeni mag wax dëgg yàlla jox nañ ñu cër teg nañ ñu fa ñoo war a teg loola nag man damay jàpp ne luñ doon ci seen luñ jëlee ci seen i baay la loo xamante ci seeni waajur lañ koy jëlee ndax fii booy xool ndaamaatu waa kër Sëñ Fallu rek fi dëkk waaye nag ku ci gis sa moroom day mel ne sa bopp nga gis te man dama naan buñ melut noonu ñoom ku leen gis mën na leen a jaaxal te noonu rek lañu war a mel dañoo war a jaxasoo war a ànd ndax ñoom ñun ay nawle rek lañu te man dama naan sëñ Tuubaa nekkatu fi ndax waaye doomi sëñ Tuubaa nekkatu fi waaye ñi fi nekk ay sët kepp lañ te man damay jàpp ne la sëñ Tuubaa bëggoon ñun ñii nga xamante ni ñun ñooy ndaw ñi ñun ñoo ko mën a mottali niñ koy mottalee nag mooy defar suñu jëmm ba ku ñu gis bëgguñu waaye defar suñu jikko tamit ba ku jaxasoo ñun du ñoo mën a bàyyi loolu képp mooy li nga xamante ne nii buñ ko defee danañ seddal suñu xol yi waajur danañ seddal suñu xol yi suñu xol yi mbokk te euh, wax dëgg yàlla sëñ Bass wéetut ci lii ndax bi mu ko wootee daanaka booy xool ñi fi ñëw di jàng ñëpp ay moroomam lañ kon moom noonu muy doxe bul fa teggi sa tànk gën ko faa teg ndax fii moom euh, damay jàpp ne sëñ Touba ñun ñëpp ko bokk sëñ Touba loo ko jege jege jege jege te koo ci li li war nit ñi mën nañ la faa bàyyi ndax finte nii kenn mënut naxati kenn kenn mënut nax kenn man damay jàpp ne fii li fi am solo mooy fexe ba def ci yow ay teggin def ci yow ab yar te di soññ suñ mbokki jàngkat yi xasida yi ñu gën a góor góorlu ci xasida yi te bañ di ko caaxaane ndax mbirum sëñ Tuubaa amut fo bëri na ñu fi jàng ñoo xamante ni wax dëgg yàlla liñ jàng macha allah am na solo lool te man damay naan way jëru ko lépp suñ tubaa la te man damay naan jàng xasida yi rek doy na sëkk jërut way jërut nangam ndax amul solo ndax am na ci loo xamante ni day mën naa dugg ci liggéey bu baax sax yàqu ko te adduna dafa dafa jaxasoo fim ne ñu gën a góor góorgóorlu rek fe euh, fii nag man damay jàpp ne ku fi raw ci ak taalibe képp la rawe képp ku fi raw ci ab ak taalibe rek la la rawe te wax dëgg yàlla suñ kilifa yii ñoom ci ci loolu la ñu dox kon ñun dañuy topp ci seen ginnaaw rek fas yéenewuñ leen a mooy lépp loon loo leen bëgg loolu la ñuy def loo leen loo leen bëgg duñ ko xool sax wax dëgg yàlla ndax doy ngeen ñu sëkk wax dëgg yàlla yal na leen fi suñu borom gën a yàggal sant nañ bu baax nag mbooleem ku fi teew rek Cheikh Ba sant na la bu wér a wér a wér a wér ndax jamono ji xat na rawatina diggante fii ak màggal jege na te bëri na ay coona waaye ñëpp bàyyi nañ ko ngir jikkoom ndax nit ki moom ni mu mel rek la bisam di mel gone gu yaru la wax dëgg yàlla ku bëgg lu baax la tamit ku bëgg sëñ Tuubaa la tamit wax dëgg yàlla ndax loolu dama dama koy gis ci moom ndax damay damay gis mbooleem kuy magam kuy jëflanteeg yow ci taalibe rek lay jëflanteeg yow loolu nag am la solo yàlla bu la ci dara génne yàlla na sax ci yow sëñ Modou tamit sant na ko bu baax a baax a baax ndax lii mu def rafet na wax dëgg yàlla te lii rek mooy mooy mbir mi waaw nañ ko nañ ko teg ci lii rek waaw ndax def gi nga ko def defoo ko ngir dara da nga koo def ngir jëmmi sëñ Tuubaa waaw sëñ Tuubaa moom mu tax nga def ko nag yàlla na la fayal boppam li nga ci yéene ci bis bii ak li nga fas yal na la ko suñu borom defal suñu xol seet na bu baax ndax nit ki man mënewu ma wax sax waaye wax dëgg yàlla mën ta ñàkk ndax bu la sa kilifa waxee il faut nga jéem bu la bu la ko sa kilifa digalee il faut nga jéem a góorgóorlu waaw sant nañ baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw moom mi tamit sëñ Fallou kon tey ji am na loo xamante ne tey ji duñ ci sol dañ koy bàyyi mu nuyoo Mbacke Balla ñu ngi lay nuyu. waaw lay fay ñu ngi lay fay di la siyaar bu baax am tawfeex bu baax a baax alhamdulilah waaw bis bi nag sama kër sëriñ lañ ko defee dafa nekk suma turandoo peut être sëñ bi wëlbati ko joxaan ma ko nekk sama sëriñ kon ma fi ñëwee ak taalibe laa fi doon te ki fekk nag di suñu mag mu Cheikh mu jël bis bi tuddee ko suñ suñu moom Mbacke mu suñu joxam kon bis kon suñu bis la kër suñu tàkkoo kër suñu jox nag benn la ndax ñoom ñaar seen seen diggante dafa yàgg lool jiitu woon na ñun ñii suñu ñëw teew ci àdduna kon nag ñun bu ñëwee dañuy xool diggante bi comme suñu bàyyi niñ meloon ñu joxe mel noonu loolu mooy ci tey ñu gis na tey jii jàng yi tey fees na kilifa yëpp yéen a ngi fi te yow ngeen nekk sëtu sëñ Fall nekk sëtu sëñ Touba te tey jii yéen a ngi taxaw mel ni kuy sécurité bis bi te yéen yéen a waroon toog ci photo yi waroon toog ci basan yi taalibe yi mbokk yi taxaw tim leen di leen ump tey jii ngeen toog tey jii mel ni yéen taalibe yi maanaam loolu xanaa xanaa seen waajur moo ko def ci yéen. waaw ndax day wax ne suñ Fallu moo jaayoon njureelam jërëjëf taalibe kon ñun tamit taalibe googu noonu suñ fa suñ njureel googu suñ Fallu jaayoon ñun dañoo ànd ci njureel googu nekk ay taalibe moo tax taalibe dañu doon ba fa keroog faat bis bi nag Cheikh Bassirou Mbacke moo ko tuddee suñu Modou Mbacke suñu Ceexum kon lépp benn la ñun bi fi ñëwee dañoo war nekk ay taalibe nekk ci liggéey bi day àndandoo ñëpp ndax ak taalibe rek moo am solo mu ay moroom mu taalibe bi ba pare bis du tuuti borom lay tollool Cheikh Bass Mbacke moom njëkkum dafa rafet ndax képp ku mu gis moom da war warmaan moo tax saa yu wootee nit ñi dañuy sawar ci teewal ndax borom baax la moom. tey lan ngeen lan ngeen di gën a ñaaxaat mbokk taalibe yi nga xam ni ñoom ñoom ñoo fi ne. waaw ñu gën a góor góorgóor rek di wax ne kontaan nañ lool ci teewaay ndax ku teew ci bis bi ñu nga teewal ndax daanaka ñun ñu lañ ñu lañ woo ci bis bi képp ku teew rek ñu lañ teewal sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen di ñaan yàlla di ñaan yàlla bis bii yee ko fi fekkee teewee ay ati te bu ñëw rek beneen dàq morom. comme Mbacke Balla gi ñu bàyyi la nga tàggatoo te nga ñaanal mbokk taalibe yi. waaw kon alhamdulilah rek la ñuy wax ci bis bi bis mag bi ñu génn muy sawar gi di sant yàlla bu baax lépp lu ñu ci def di ñaan yàlla mu fëlal ñu ko di leen ñaanal yéen waa télé bi yàlla defee leen xéewal mu boole ko télé yi gën mag ci kàttanu borom. yéen a dégg a ko dégg noonu mais lépp tey di ngeen ko gis ci li nga xamante ne moo ci biir Salam Vision. waaw ba léegi comme ni leen ko waxee rek lépp tamit ci biir Salam Vision tey ji comme ni leen waxaat rek ba léegi ñu ngi ci bis bi nga xamante ni mooy weesu na bisu màggal waaye ba léegi ñoom dañ màggal bisub dimanche képp ku ko xool xam ne tamit euh, euh, journée la woon màggal gi tey wees na tey ji ñu ngi ci biir dimanche te suba leen dina te am na loo xam ne mooy lépp lañ dërmal tey ji nag ñoom tey ji lañ ko tëj ci li nga xamante mooy bisu màggal gi soxna ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay delloo ngeen jàmm. waa ñu ngi am tawfeex bu baax. tur bi naka la. ami. tey ñu gis ne tey yaa ngi kër Tako sëñ Tako tey jii sa diggante ak sëñ Tako lan ah ci yoonu murid rek moo waral suñu diggante sëñ Tako te bëgg a sax si loolu moo tax ñu wut wéeruwaay boo xamante ne suñ ci saxee duñu fa xasal dinañu wan yoon bi looloo waral ñu ñëw si sëñ Tako. tey jii ñu gis ne sëñ Tako tey ji euh, daanaka ñi fi nekk bari nañ mbokku taalibe yi ñu ngi jàng. sànq am na ñu jàng sànq ba dem kuréel bi tamit nekk fi ba léegi yéen yéen a ngi toog te tey bu leen neexoon tey ngeen dem tey ji wala tëdd yi tey bu demee ba toll fi tey yow yéen yan yëg-yëg ban yëg-yëg ngeen di am. ah kontaan rek da xam ne sëñ bi loo ko defal lu ne dala kay delloo moo tax ñu bëgg a saxal si di ko liggéeyal mënoon nañoo ñibbi mais defuñ ko dañoo toog xasida yi moo nekk loo xamante ne day dundal xol. ñu toog fii day seetal suñu xol yi duñ ci am benn gàllankoor ah, a góorgóorlu rek te xam ne caaxaan amul njëriñ ñu saxal suñu bopp ci yoon bi rek te xam ne dina baax xëcc bu dakkul dikk. ah ñoo ngi sant borom Touba bu a baax a baax jërëjëf Serigne Touba. alhamdulilah yéen a ko dégg nee na nee na jërëjëf Serigne Touba nee na jërëjëf Serigne Touba parce que bu ñu nee dañuy débat tam di gën a amaat mbégte mooy ki ñu toogal sëñ bi la du yoon sax ñuy taxaw sax di tolloog moom waaye sëñ bi loolu dañ koy tubaat bu baax a baax gannaaw yàlla boobu dañ lay bàyyi nga nuyu tam sa bokk taal bi tam te ñu ngi gën a yeesuwaat. waaw ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp rek te di njukkal ñëpp ci màggal gii ñu jógee maanaam di leen di gën a sant sëñ Tuubaa rek ci fekke gim ñuy may ñuy fekke yu mel nii ndax dañoo amul ku dul moom kon bu ñu bu ñu maanaam defalee loo xam ne nii mën na tey jii ñuy fekke guddi yu mel nii di wax ci wax yu mel nii ak ndimbalam la rek dañ ciy sant sëñ Tuubaa di ci sant suñu baay yu baax yi ñu fekk si Alaaji Sëriñ Tàkko Mbàkke ak suñu baay Sëriñ Seexu mi ñoo ngi leen sant bu wér daal waaw di la déglu ñu xool. ndeysaan tey jii euh, jii daal ñu gis ni sëñ Fallou mooy sa maam sëñ Fallou kam mooy waajuram ñu ne sëñ Touba sa waajur bu góor kan ñu ne sëñ Fallou kon maanaam direct ci sëñ Touba nga tey jii sa mbokku taalibe yi tey jii gis nañ ni Djiby Sangawar tey yéen a nga taxaw fii mel ni yéen yéen ay taalibe yi te mbokk yaa ngi ne toog te yéen da ngeen a waroon toog fa taalibe yi di sukk dina jox addee mais dafa mel ni yéen dafa am beneen soppeeku boo xamante ne da ngeen ko bëgg firndeel di ko won mbokku taalibe yi sa diggante ak mbokku taalibe yi waaw xam nga ni ko sëñ Modou Mbacke waxee sànq rek maanaam bis bi tey dama naan bu doon bu doon maanaam lu ñuy wax la tey dama naan duñ ci duñ ci maanaam caaya waaye mbubb lañ ci ndax ki ko woote Cheikh Mouhamadoul Bassir sunu mag la waaye rakk la ci sëñ Modou Mbacke kon bu jëlee cër bi xool maanaam ñi nga xam ni nii sëñ Modou magut ci penc mi ñu nekk muy ndaamaatu waaye bu jëlee cër bi delloo ko ko loolu dafa am feneen fu mu jëm day gën a firndeel ne sëriñ Cheikh Oumy Mbacke ak suñu baay El Hadj Sëriñ Tako sëñ Fallou da leen a boole comme ni ko Baye Galas waxee sànq ñaari kër yi du ñu ñaar benn lañu ku ko def ñaar seytaane nga fa nga jugee yow kenn xamu ko yàlla nañu suñu borom musal ci yow. li ñuy dolli li ñuy dolli di wax rek ñun moom Cheikh Momadou Bachir la ñuy wax maanaam na xam ne kontaan nañ kontaan nañ ba fu kontaan yam li ñu mën ak liñ mënul lépp def nañ ko moom nañu fasal ci barkeem maamam ba yeneen ndax yamut ci sëñ Modou. keneen kuñ ko joxaat ci njabootuk sëñ Fallu mu def loo xam ne nii dina kawe lii fi Serigne du def ndax sëñ Touba amut tànki ginnaaw tànki kanam la am seex Cheikh Mamadou Bassir moom yokk rek lañ koy ñaanal waaye ñoo ngi sant suñ kilifa yi bu baax ndax ak taalibe rek lañ ñu jàngal ñun boo ñu gisee ñu doon ay taalibe bu mu la jaaxal lépp ci ñoom lañ ko jëlee ñoom la sant gërëm leen bu baax a baax a baax a tey jii ñu gis ni euh, am nga lu bari loo xamante ne tey jii yéen a ngi koy seetlu ci mbokku taalibe tey ji sa diggante ak mbokku taalibe gi maanaam ba ñu déblomé màggal gi ba màggal gi weesu ba tey ji di bisub dimanche suba di lundi tey ji ñu gis ni tey ji màggal gi tey dafa mel ni tey ji tey ji dafa mel ni tey mu nekk ab bisub màggal tey ji affaire bu demee ba toll fii yëg-yëg bi lan la waaw xam nga sëñ Tuubaa moom ay bisam dara la rek sëñ Tuubaa moom ay bisam wooteel sëñ Fallou nag da daan wax naan woote yomb na waaye woote ñu wuy la moo jafe ku ñu wuy nag na nga xam ña nga ña la si loolee ni doyee sëñ Tuubaa ay bisam wooteel li koy feesal moom moo koy indi xasida nga woote wooteel sama mbokk taalibe yi nag li ma leen digal mooy ñu liggéeyee te jaamu yàlla sëñ Tuubaa amul àjjana ju ànd jaamu yàlla ñi nga xam ne ñoo topp ci Cheikh Ibra nañ jëfe ndigal ndax kat ndigal caabi la bu ëppee du tijji bu yéesee du tijji loolu képp laa leen doolee digal muy sama mbokk taalibe yi nañ sax ci liggéey te jaamu ji yàlla buñ ko defee rek lépp luñ bëgg yaakaar naa dina ko am dinañ alhamdulilah kontaan nañ Mbacke jërëjëf maa leen gën a alhamdulilah yàlla na yàlla fay amiin amiin barke salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi siyaar mbokki jullit yi mbokki taalibe yëpp ak téléspectateurs yi nga xam ne yëpp ñooy suivre Salam TV ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen béggee li yor wax nii nag mooy sëñ Maxtaar Mbacke Baye Fall ba laaj sëriñ tàkko moom sëñ Fallu kaddu yi yëkkati nag lot nañ lool ci yëkkati ko waaye da di ndigal moom caabi la boppee du tijji bu yësee du tijji ndigal loolu xam ne dañ koo jot ci suñuy kilifa leeboo di sëriñ bi ngir ñu sànni leen ay kàddu cant cant gi nag ñoo ngi ciy jiital Serigne Mountakha mbakke xalifa général ku lu murit di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba naal mun naal ngir liggéeyal ko waaye maam ju tedd suñu borom day ko mu àggale ko te nu ànd ko ak moom na ko noonu di ko ñaanal Serigne Abou Bakr moom xalifa Cheikh Mouhamadou Fadilou di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér ba li mu namm ci këru baayam bi ak liggéeyu maam bi suñu borom may ko mu àggale ko naka noonu di ko ñaanal suñu yaakaar àdduna ak àllaaxira laaji sëriñ tàkk moom Cheikh Mouhamadul Fadal di ko ñaanal mu yàgg fi ak gépp sunu jëriñ sunu kilifa sunu mag sëriñ Fallou Mbacke di taawam naka noonu di ñaanal suñu waajur yooyu sëriñ Cheikh mi Mbacke moom sëriñ Fallou mu yàgg fi loolu te nga xamante ni moom ngeen déglu woon ci bis bi nga xamante ni moom ngeen jagle woon bis bi. waaw bi moom li ko sabab mooy suñu rakk ju baax di Cheikh Mouhamadul Bachir moom alaaji sëriñ tàkk moom sëriñ Fallou moom la yàlla defal tawféex moom xalaatu def bis bii bi mu ko xalaatee tamit wax ko njaboot gépp ànd koog ñëpp moom moo ne ca bopp ba ndax moom xalaat bi moo ko woote waaye gis nga ci njaboot gépp nekk ci te li ci gën a rafet mooy bis bi daan na am daan na neex ñëpp daan ci jàpp waaye bu tey bi dañu gën a neex na giñ ko tuddee muy Serigne Modou Mbacké mu Serigne Cheikh mu Serigne Fallou day kenn ci ñun heure boo ñëwee fii nga koy fekk fu nu nekk mu nekk fa ak ñun kenn ku ne bu bu bis sori sori sori mu ñëw ànd a yow doon nit koo xam na ni wallahi ñun day xam na ni mënuñu ko fay te xol bu rafet bi ko yàlla defal ak yéen ji ko yàlla defal yàlla na ko suñu borom mottali ba lim yéene ci njaboot gi ak ñaari kër yi suñu borom mottali ko ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax xamal ni daal bis bii bisub sant Serigne la ñu koy def at mu jot waxtu wu nu màggalee ba noppi waaye nag tey maanaam dayoob ki ñu ko tuddee feeñ na ci bu baax a baax a baax ndax tey li fi daje ci mbooloo man amaana mosu fee daje ndax li ñu wax rek tey sëñ Tuubaa gu ne day day gàcceel démbam lii da cee bokk tey nu ciy santat Serigne bu baax a baax a baax di ñaan ci kattanu sëñ Tuubaa ñu yàgg koo teewee ndax it bis bi dañ ko darajaloon sëriñ Modou Mbacke mu sëriñ Cheikh Oumy ak sëriñ Balla Wañ bëgg fàllu di borom tawfeex ne nit ku baax doon talib alaaji sëriñ Takkom sëriñ fàllu nekk ku baax dem na ba kër gi doona ko fi taali waaye doom la doon nun ñii suñuy mag suñu mag la kon nag ak cant bu baax a baax moom ni nga ko koy amel ndax jëf na ci bu baax a baax a baax a baax da di sëñ Modou mooy kilifa gu mag gi buñ bu tudd moom mii dootul nangu ñu tudd ko waaye ñoo bokkoon bis bi ñu dara dale leen ko ñu am ci taxawaay bu rafet ndax bu desoon Cheikh Bass kese la lii du ko mën mbokk yeeg njaboot gi ñëpp ci jàpp ku ne taxaw nga ci gis nga ñooñu nga gis ñuy séddale ñëpp du ñuy mbokki taalibe leen njabootu sëriñ bi la ñoo yor bagage ñoo koy séddale noo bu baax baax a baax a baax a baax léegi foofu noonu bëggoon naa fa ñëw tuuti tey a yéem sax man mooy kilifa yi ñoom ñooy jël bernde yi takk seen ndigg di wër di ko jox jaamu yàlla yi te tey ji ñoom bu leen neexoon tey ji mën nañoo toog mbokk taalibe di leen ump wala ñu taal leen ventilateur wala ñu toog ci ay kilim mais tey ji ñoom ñi wàcce seen bopp xooluñu ni doom lañ ñu ni sët lañ tey ñoom dañoo wàcce seen bopp tey ànd ak mbokku talibé jaxasoo ak ñoom seen biir secret boobu noonu nga xamante ne dafa am ci biir kër sëñ Fallou Mbacké gi secret bëgg ngeen taataanal ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy déglu. waaw loolu moom yaakaar naa ci ko xam ko ne du la jaaxal ndax noonu àdduna du ñu mës a doon lu dul ab talibé sëñ Fallou sëñ Fallou kenn du ko yaakaar di dugg doon leen lu dul talibé nii ñu mel la suñu bàyyi mel noonu la sëñ Fallou meloon koo xam ne dafa jaay njureelam jëndee ko taalibe jëlaat njëgga def ko addiya kooku kenn mënu koo yaakaar baa nga bokk ca di am beneen melokaan bu la doon taalibe mhm. noonu suñu xol yi sëñ fàlloo ko moom moom gi ko moom nag du li nga xam ne maanaam day mbokk wala dara moom gi ko moom mooy maanaam sëñ faloo daa nekk koo xam ne ak mbaaxam kuñ ko waxtaanal nga bëgg ko doon kenn yemut ak lenn ci oyof ci taalibe ci bëgg sëñ Tuubaa nit dabu ko ci ndax Cheikh Bass mii woote bis bi ni sëñ fàllu demeek sëñ Tuubaa rek la demeek sëñ fàllu mbàkke bu sooba la sëñ ma roqee bu sooy maamam moo jur waajuram bu jigéen kon xam nga ni kooku maanaam dafa am cër bu wér ci sëñ bi moo tax nag loolu moom jarul sax question bi di gudd xamal ni daal ñoo fi gis ñu takk seen digg dooni taalibe ñu bokk sëñ Fallou la loolu rek la li ñu ci gën a neex nag mooy ñu ngi sant bu baax sëñ Modou Mbaye mii ñu ngi koy sant bu baax a baax ndax sant gi li ñu koy sant mooy fi mu bokk wane na ko ci fu ñu nàmbatalee muy sëñ Fallou wane na ko lu ñuy def ci àdduna dana ñëw dañu ko xeebal fu ga kër sëñ Fallou yi daje moo fay jiitu kon nag noo koy sant bu baax di ñaan suñu borom wéral baatam nun de lépp lu ñu seex ak moom ci teranga baa ñu koy defal jëmmi suñu fàlloo tax ñu koy defal te li ñu yéene ci suñu diggante moom noo ngi ñaan suñu fàllu may nu kattan ban àggale ko ak ñi mu àndal ñëpp sant nañ bu wér a wér a jërëjëf nijaay ñu baal rek nga nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo lay seetaan waaye di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, di tuub sax ci kàddu yi nga xam ne moom lañu yëkkati suñu kanamu sëriñ bi suñu jëwriñ di suñu xarit kenn ci ñun mu Serigne Makhtar Mbacke Baye Fall moom Serigne Tàkku Mission de Fadel euh, yellul sax duy teggin ñuy yëkkati kàddu ci kanamam gannaaw bi mu ko waxee ba noppi ndax kàddu yi mattale na euh, tegane ci aw yoon te it ku ko gis xam ne yarub sëriñ be yarub sëriñ bi moo ni mel ndax euh, Serigne bi képp ku mu yar bu waxee rek nga xam ne kii yarub sëriñ be ndax kàddu yi tege na te ànd ak yar yar goo xam ne mëneesu koo natt fenn. waaye noonu la ñuy maanaam di sant itam alaaj sëriñ tàkku mu Cheikh Fadal ndax lii yëpp moom la euh, sëriñ euh, tàkku mu sëriñ Fàllu ñun amuñu lenn du sant ko ndax mun na wax ci moom nim nu dimbali Mbàkke euh, doy na waar yéeme na dimbali na nu saasu ne jàppale nu saa saasu ne ñun ak njabootam fépp fu nu ne du nu tiit ndax dañuy xam ne moom ma nga fa ndax koo xam ne da wax ne sama njaboot dama leen a jàpp dama leen a bëgg di leen bàyyi xel kooka kenn mënu koo fay euh, di ñaanal tamit jëwrinam ji muy Baye Galas Mbàkke moom sëriñ tax Mission dafa den yàlla jiital gii mu ko jiital ci njaboot gi ak doxin wii mu ci doxee saa borom gën koo dëgëral ba yéene ji nga xam ne am na ko liggéeyal ko wajuram mu ànd ko rakkam te saa borom def leen ci ndam lu yaatu ci doole Cheikh Khadim mbaaxam Cheikh Mamadou Bassir mi itam nga xam ne bi ma ñëwee euh, dafa ma wax ne ma hmm, wax naa sëriñ Cheikhouna Mbacke ne bés bi bokk nga ci ñi ma ko cëralee euh, sëñ Modou laa ko cëralee muy sa kilifa waaye yow laa ca sof ngir ni nga doonee taalibe ci kër gi doon doom ci kër gi te yàlla def la nga fonkanteeg ñëpp bëgganteeg ñëpp kër gi jàpp la mu doon it euh, cër bu diis ci man ma ne ko de fu ñu tudd Serigne Cheikh euh, sëñ Modou moom Serigne Cheikh ummi du ma ñaan yàlla ñu tudd ma fa ndax man taalibe laa ci seen biir euh, kon mm, cër bi moom moo ko moom mm, damay ànd ak moom cër bi rek liñ ma yëkkatiloo kàddu sax ma waral ma def ko waaye lii duy teggin te tuubal naa ko ñi koy seetaan waaw tuubal naa ko ñi koy seetaan tuubal ko sëriñ bi ndax yellut ndeysaan foofu sax dama ciy xaw a daanaka sax sëñ bi lu mel ni sax bu ngeen ko desoon ñoom dañuy gën a amaat mbégte parce que dañu xam ne kat lu baax moom kenn du ko nëbb lu baax dañ koy wane lu bon nag mën nañ ko nëbb lu bon nag kenn mën nañ ko bañ a wax parce que lu ne fàng nag kenn du ko jeex parce que olof Ndiaye tamit loolu la wax waaye tey jii bi ñu demee ba jël bis bu toll nii surtout sëñ Fallou ñu jël jël bis bu mel di jagleel leen ko bi ngeen demee ba nga xam bi toll na foo xamante ni ñoom dem nañ ba am yëg-yëg yi jël tey bis bu toll ni tey jagleel leen ko tey yéen bi ngeen xoolaatee xoolaat xoolaat seen bopp tey ji gisaatu leen beneen yokkute boo xamante ne tey Sëñ Tuubaa tey def na ko ci yéen waaw loolu moom mm, <laughs> mag ñi dañuy faral di wax ne lu ne fàng kenn du ko jeex euh, sëriñ sëñ Matar Mbacke mii ak euh, njaboot gi ne fii ku mel ni sëriñ Xabban ku mel ni si Abdoul Fatah Euh, Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Ami Baara ak njabootu sëriñ bi yàlla daf leen a boole booleen woo xam ne yàlla na yàlla lafa leen cat euh, ba seen doole euh, kenn mënu koo ràññi ndax ku ci ne la nga nekk sa morom da ciy ne te yeneen yeneente jàmm bëggante fonkante ba kenn ku nekk la nga yor yéene nga ko sa morom ndax loolu moo waral ni mu demee mu demee nii dem ba sëñ Bass ñii mu bokkal wajur laxasaayu Euh, nekk ci liggéey sëñ Tuubaa ndax xam nañu ne seen maam euh, li gën la defoon mooy jaay ak njureelam jëndee ko ak taalibe euh, tey képp koo xam ne mm, yaa ngi dox ak taalibe tey si maam gannaaw gannaaw Cheikh Fadal da ngay dox ci ak bëggam rek ndax sëñ Fallu loon wan yoon wi sëñ Fallu moon wan yoon wi bi nak nakal amee ak jeexi jaaxa nu ñëw xàllal yoon wi gën a gaaw te yàlla mooy nanu bàyyi lépp te jàpp ci taalibe te xam ne taalibe moo ñuy dimbilee dem na ba loola daa répété ci njabootu Serigne Fallou li comme ni ko Serigne Matar Mbacke bay fal moom Serigne Takku Serigne Fallou waxee euh, njabootu Serigne Fallou gi koo ci jaxasool da ngay jàpp ne yow rek la gën a bëgg njabootu Serigne Fallou gi li tax sama borom defal leen loo xam ne ni yombut ko ko am mooy seenu njaboot dañu koo bëgg ràññale woonub seenub taalibe ak doom junjur ak keneen ndax yéwén ak baax ak yaatu euh, ci ñoom laa gis kilifa goo xam ne boo leen jubee ñuy far di ngay tàggoo ñuy làbbi poos ci ñoom waa kër Sëñ Fallu laa gis boo leen jubee dañuy ree ngay tàggoo ñuy làmbi poos te it seen mbir euh, kenn mënu koo misaal daal lu ma am tàqo ma am euh, tàqal ñoom maanaam ànd ak ñoom amatug rëccu man damay wax ne yërëm naa yërëm naa koo xam ne euh, mosul Sëriñ Fallu dama koy yërëm ndax xam li ko waral mooy Sëñ Fallu boo ko xasee mos tuuti lu la waaye waxati dalay soof te man sa law làquma ko nëbb ma ko man dama caa fiir man dama caa fiir man Sëñ Fallu képp te alay siñ tàkku mu sëñ Fallu danoo dimbali yaram noo ngi koy ñaanal yàlla de Mbàkke noo lay ñaanal yàlla nga gudd fan lool te wér te xam ne say taalibe ñëpp la gërëm say taalibe seenu xol yow rek yaa ci ne yow rek la ñuy yëg ndax xam nañu ñewantal ak yërmande gi nga xam ne am nga ko ci ñun ku ci jekk gannaaw yàlla yow la Mbàkke ni nuy dimbali xam nañu ko yëg nañu ko su nu ko waxee ak bu nu ko waxut ndax bu nu demee ba Cheikh Mamadou Basir man mi di taalibe ci kër gi doon ñi gën a lott ci taalibe yi mu am leen lu may bàyyee xel ci kër gi rek sag boole la ak sag bëgg lu baax ak dimbali njaboot gi loolu moo ko waral waaye siyaare nañ Baye Galas de Baye Galas Mbàkke moom suñu tàkku siyaare nañ ko baax siyaare nañ ko baax a baax lii lépp moom la lii lépp nas nas wi nga gis yi nii nasin wi fi dox nii lépp moom la daa jiitu te ñun ñi mu jiital mu yërëm nu lool te fonk nu lool bëgg nu lool dinu dimbali saa su ne loolu ñëpp mat nañ ci seede Euh, te boo xoolee nii mu def ak rakam yi euh, muy muy muy sëñ Galas moom Serigne Cheikh Oumy euh, ak ak rakam ñëpp nii mu demee demee ak ñoom nga xam ne sëriñ bi dimbali nañu kon noo ngi koy baax di ñaanal sëriñ ba borom dëgëral ko wajur yi saa borom bàyyi leen fi ba yéene ji ñu am ci liggéey sëriñ Tuubaa bi ñu am ci ndam lu gën a yaatu loolu di siyaare baax sëriñ Matar lii moom moom la ak ak ak ak ñoom ñii muy muy muy muy sëriñ Seexuna ak ñoom waaye ñoom rek la waaye man sama kàddu waru fi woon a jóg ndax ware du woreef waaye tuubal naa ko ñi koy déglu ma bamtuwaat ko tuubal naa ko bu baax a baax. mais dañ laa jagleel bis bi dañ leen a waaw waaye man samay kilifa lañ eh, ndax ñoom ñoo moom man seen seen bàyyi rek laa yaakaar te li nekk ci man moo ko def ci man li ne ci man lu ma baaxlee rek Sëñ Tàkku Monsieur Abdou Fadel la lu ma bonle sama jikkoy bopp la waaye sëriñ bi ci dimbilu nu la nekk te mat mat naa seede ci ne Sëñ Tàkku ku ànd ak moom ndimbal ngay am man mat naa ci seede xam nga nit koo xam ne nag man maa waxal sama bopp man li ne ci man man xam naa fi ma Sëñ Tàkku jëlee xam naa fi ma yóbbu xam naa fi ma nekkoon bi may ñëw ak fi ma toll tey kon sooy wax ndax bis bi am na yokkute wala amul yokkute loolu boo na ko laajee danañ ci mat seede ndax xam nañu ne dañoo jugee ci juróom dem ci junni te it day gën a dox rek day gën a jag rek ndax incha allahu rabi incha allahu rabi taala suñ tàkko dañuy ñaan mu yàgg fi rek bu fi yàggee léppay jàkk léppay baax te baax na ba noppi sax nag jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah. alhamdulilah yéen a ko dégg lépp jag na parce que tey dañuy delluwaat a amaat mbégte bu baax a baax xool tey fi ñu taxaw nii xam ne sëñ Tako mu sëñ Fallou fii mooy bërëbam. képp ku xam sëñ Tako mu sëñ Fallou Mbacke xam ne salle bi lay recevoir ñi nga xamante ñooy ay ganam kon ñun ni tamit am nañ mbégte goo xamante tey buñu demee tey ba taxaw fi tey sedda yàlla tey ji di def loo xamante ni tey ji maanaam dañu koy mën a taataanal ngir yéen ngeen koy mën a seetaan jàppaleen ni tey jii fii mooy que sëñ tàkko mu sëñ fàllu suñ ne sëñ tàkko ne sëñ fàll bu ne sëñ fàllu ne sëñ Touba kon loolu dañ ko gën a waat waaye kenn du sëñ Cheikh Oumy moom sëñ fàllu di nuyu tamit sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhla moom mi nga xamante ni lépp tamit ci la te am na loo xam ne tamit ñun duñ ci sori comme maanaam dañuy delluwaat tamit di gën a santaat baax a baax. waaye magam jooju cër bi mu ko jox ak respecté gi mu ko respecté mu jël bis boobu daal koy dara jale tey jii moom lañ taxawal nii ñu bëgg a waxtaan ak moom waaye duñ si yem bëgg koo laaj li nga xam ne moo waral tey jii bis bii Mbacke Balla ñu ngi lay siyaare. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yi yëpp di leen siyaar jiite nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaan suñu borom jàggale ko fi ak suñu bàyyi suñu waaju sëriñ Alaaji Sakku Mbacke Falilou ak sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom it suñu lépp la comme ni nga ko waxee rek eh, bis bi daal leen sababu sababu sababu ko lu dul woon. Euh, dañuy gën a nekk ndaw suñu xel dafa nekkoon ci liggéey suñu Tuubaa lool benn bis nag ñoo ñu xalaat ne war nañoo mën liggéey suñu Tuubaa jaar la ko ci yu mel ni ngontum xas wala lenn ci boobu ñu jokkoo ci suñu waajuru jigéen euh, mu xamal nañu daanaka sax demoon nañ ba booba bañ ko jàppee ba noroon nañ ko ba moom moo ñu ci mujj gunge yoon bu njëkk bi euh, yàlla dogal bi bi nga xam ne moo ci topp suñu borom suñu borom jëlee ko fi muy lu tiisoon lool. waaye teewut boobu ba léegi rek ñi ngi doxal ndax daanaka ren ji mooy juróom ñetteelu édition bi ñu ciy sant bu baax ndax gis nañ wax di gàllam at mu jot bu ñëwee rek dana gën a yokk bu baax a baax mm, mbir mi daal doon sabab bi doon leen lu dul euh, fas yéene liggéey suñ tubaa rek ndax bu ñëw liggéey suñ tubaa moom eh, euh, damaa jàpp ne du amul mag ndaw maa jàpp ne ñun ndaw ñu sax ñoo gën a war mën a liggéey suñ tubaa jaarale ko ci te bañ cee rax daree caaxaan loolu rek lañ ci bëgg sàkku ci ngërëm suñ tubaa rek loolu rek lañ ci bëgg waaye bëgguñ ci leneen waa ñu gis ne bis bi tey jii dafa am ñaar ñoo ko darajal xam nga mën naa ne yemoo si mbàkke mbàkke yi sax mais nga jël koo xam ne dong la si kër gi mën naa ne taalibe la si kër gi tey nga boole ko si ñi nga xam ne moom nga darajaal bis bi muy Sëñ Seex Wañ lan nga gis si moom ba darajaale ko bis bu bis bu toll nii. waaw dañ koy dañ koy tàmbalee ci Sëñ Maodo rek euh, maanaam loolu mën nañoo wax ne yëg-yëg la yëg-yëg la sax ndax Sëñ Maodo tey jii même fii ni nekk mi màggal gi daanaka mënoo koo xam sax bu mbir yëpp jàlloon ba nga ba ba nga ñëw fii fekk ko fi da ngay da ngay moom ñoo bokk lépp ndax wax dëgg yàlla mi ngi ñu taxaw taxawaay woo xam ne doon suñu mag doon suñu lépp waaw moom daal mbir mi daal mënu ma mënu mënu mënuñu la wax sax ni ñu ko yëgee yàlla seet na ko te it xol bu xol bu xol bu féex biñ ci àndal mënee su ko wax bu dee sëñ bi moom dafa dafa doon taalibe sëñ bi wati quoi doonaa suñu mag nekk ci kër gi di ci def liggéey bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla nit ku jàmbaar la saa yu ne liggéeyam day gën a jëm kanam rek waaye jëm ginnaaw ndax lu def ren ëllëgee mu gën koo yokk ñun ñi it taxaw ñu mu ñuy taxaw taxawaay bu rafet fii ñun ñëpp ñëpp laa wax képp koo xam ne am nga ci soxla boo ko woowee laaj ko rek loolu moom faju na yaa ko yaa ko teleen neex waaw xam nga loolu nag dafa dafa dafa doon loo xam ne daal ku la koy defal war nga koo mën a war nga koo mën jël loo xam ne danga boo ko tegee ci loo xam ne dana xam ne kii bàyyi nga bàyyi nga koo xel bu baax a baax loolu waral moom mi ñu dara jaale ko bis bi ginnaaw bi ñu ko tuddee suñu Modou bu loolu weesoo mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom ñoo ñëwoon tey teew ci cant gi tey soo amee message boo xam ne yaa ngi leen koy jàllale dëgg dëgg dëgg lan la war a doon. sant rek yàlla xam na ne amul amul dara lu may wax loolu sant rek yombut nga woote ñu wisi la te tey jël toll nañ diggante boo xam ne boo xoolee fii xam ne wax dëgg yàlla waaw uy uy uy si nit ñu baax a baax wër nañ ne bu fekkoon dañ ko génn ci mbedd mi it dana gën a dana gën a doy lii dañu dañuy wan ne euh, ñu ngi liggéey. war nañ ne si ñun li dañoo war ñun li ñuy liggéey sëñ bi nangu na ko loolu waral saa bu ne bu jukkee rek mbir mi gën a mbir mi gën a jëm kanam sa ñu ngi sant ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ñaan daal bis bi bépp yool bu ñu ci am rek suñu borom boole ko ñëpp fay waaw moom daal sant nañ bu baax rek sant nañ. bu loolu weesoo xam naa ne dina kàddu yi ma lay laaj nii dina jafe lool pour nga tontu ma si mais bëggoon naa se am sax tuuti si digganteeg sa waajur wi bëggoon nga ñëwoon ma si tuuti. ah loolu de moom wax dëgg yàlla. mu ne mu ne su cee wax dara loolu moom maa maa ngi jégalu bu baax a baax loolu maa ngi ciy jégalu bu wér maa ngi ciy jégalu suñ bi daal mooy suñ bi rek suñ bi bi rek waaw maa ngi bu wér. waaw waaw kon sama gars yi gis nga kon ginnaaw bi lépp loolu weesoo ñu ngi santaat bu baax a baax Mbacke Balla Aïssa. sant daal moom suñu Balla ñu bëgg fàllu mii daal ñu koy sant bu baax suñu Balla ñu bëgg fàllu moom daal nañ ñëpp xam ne jàmbaaral lool waaye nag wax dëgg yàlla suñu moodu tey jii defal na def na def na jëf joo xam ne bett nañu te rëy na ci ñu lool yàlla xam ne ni mu seddee suñu xol bi sax mu ne suñu ko wax jëlee nañu foo xam ne waaw ñu ngi ñaan mu yàgg. sa digganteeg sëñ ma la ko waxee léegi rek ni ma la ko waxee léegi rek maanaam doon doon mënu mënu ko sax wax yëg-yëg la yëg-yëg la bu kawe. yëg-yëg la bu comme gis ngeen ko ni ngeen ko gisee man mi sax sama xol sama xol baa ngi commencé tooy xam nga rek murit moom lu ko yëngal dafa dafa yomb ginnaaw bi loolu jàllee Mbacke Balaye sa sa kàddu yu mujj. di ñaanal. suñu ñaari kilifa yi nga xam ne ñooñu seex alaaji suñ tàkko ak suñ seexu mi ñu yàgg fi lool te wér ak suñu mag yu baax yi nga xam ne damaa fàtte sax sànq may wax waaye ñoom laa waroon jiital ndax ñun ndax dafa neex maanaam man bu kenn ñëwtoon ñoom ni ñu taxaw rek wax dëgg yàlla dafa sedd sama sama xol guyu bis bi ñëwee ku ne day bàyyi ku ne ku ne day day nekk ñëw ñëw taxaw ngir bis bi def ko def ko def ko ni sa yëfi bopp loolu rek moom ñun dañoo doy sëkk wax dëgg yàlla moom daal ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàggal leen fi suñ kanam ñu yàgg koo ànd Euh, yàgg koo rafet rek saa bu ñëwee di a jëm kanam rek waaw incha allah di di sant bu baax a baax yéen ñi waa Al Amine Vision. waa Salam Vision Salam Vision Al Amine ñu leen a baax. sant nañu bu baax gis nañ gis nañ liggéey bi euh, màggal gi ba léegi gis nañ ngeen jëf bi am solo wax dëgg yàlla. leen bu baax a baax yal na leen yal na seen télé bi yegg yegg fu kawe kawe rek fu ñuy seen mooy jàmm ju ànd ak gis-gis bu sori. <laughs> sa loolu taxu feex la ndax suñu borom <laughs> da gis-gis bi gën a sori rek <laughs> jàmm ji gën a yokk jërëjëf jërëjëf. Mbacke waa gis ngeen.